Et jërë Jeff Mok internet yu déglo, à travers partout dans le monde rawatina ni abonné chaîne mag bi ñuy wax Galsen People yéen ngi fi c'est actu du jour ça chauffe entre Batlemi Diaz et Ousmane Sonko Barthélémy Dias nak dem bu mu génnee euh, génn def sorti wam bi waxna ay wax yo xamante ne dérange na wa Pastef patriote yu bari ñi nga xamante ne euh, dañoo abonné woon ci compte Facebook am ñu bari presque plus de trente mille personnes euh, se sont désabonnés Barthélémy Dias nak mi ngi doon wax ni avoir quatre vingt vues ci live néna c'est très facile dafa yomb yomb néna aussi il suffit juste d'avoir une carte de crédit il renchérit en disant que Macky Sall pense impopulaire a pu avoir à 85 000 vues en live. Euh, Big Degelo, Sénégalais euh, plus de 30 000 personnes, nous avons maintenant été abonnés euh, si, euh, Media sur son compte de Facebook. Nous avons presque désabonné. Nous avons plus de 300 et quelques mille. Maintenant, nous avons 291 000 abonnés. Nous avons maintenant été waa patriote yeeg wala Pastef ñu fi nekk ñu Je dañ ko mere si sorti bu mu defoon euh, ngeen jëf rek di leen People